tey lan moo sabab sen ñew fi euh, ci euh, li nga mom moy euh, li plateforme bi organisé ngeen def ko ben symbiose lan moko waral. bon boo gisee université des vies sac astafurla université virtuelle du Sénégal pas des vies sacrifiées une université problématique la. parce que promotion 1, ba promotion sept pas am problème foo waxu day metti secteur pas am problème foo laal day xasan promotion 1, nous ngi une subvention. ak pour valider juste un master parce que mënuñu comprendre université 2013 l'US ko 2013 dañ ko créé mais mënuñu comprendre depuis que nous avons fait di def master si même 7 ans master 7 ans. 7 ans 7 ans ñu ngi def master pour pour juste valider seen master pendant 7 ans boo jëlee promotion 4 ba promotion boo jëlee promotion 4 ba promotion 6 nous avons fait casse examen en ligne effectivement examen en ligne c'est ce fa yàlla du parce que ñun les étudiants nous bu ñu l'administration, biir administration ba lenteur de connexion donc mais mais dañu dañu yëg ni xam nga UVS biñ koy euh, idée bi. c'était pour euh, euh, ñi nga xamante ni dañuy am problème peut-être pour orientation. ñu kan ñu féetale leen foofu. Mm-hmm. mais tey est-ce que moyens yi ngeen doon xaar ak lépp tey yemb na. ñu ñii ba ñu yëgee UVS création UVS en 2013 dañ ne ah alhamdulilah xam naa yàlla mu ñu commencé gëstu waa Sénégal mais ndaka de ñu lay wax ci biir ak réalité yi du du benn comme.

ay cours transversaux lañ doon def ta boo nee cours transversal ne cours ne cours yoo xam ne c'est pas obligatoire ay matière aléatoire la donc loolu loon dañu bëgg a. yéen a ngi xaar gannaaw euh, ndaje bi tey mu am saafara yu yu ci topp. jox nañu rendez-vous semaine prochaine waa administration centrale bi ñi nga xam ne ñoom ñooy bum di bum ñoom ñooy gérer gestion distribution des outils de travail.